beneen cas bi moom tamit mën nañu xam fan rekk la jóge exact waaw beneen cas bi eh, moom aussi tam mu ngi jóge si mosquée divine bi bu nekk euh, Wakam foofu la jóge foofu lañ ko jëlee donc moom aussi tam dafa ñàkk bakkanam sàppur dañu fekk mu ñàkk bakkanam moo tax eh, ñu indil ñu ko mosquée divine moom ay atam ci ñaata la toll à peu ay trent cinq moom tam ba quarante dem trent cinq quarante ba quarante cinq ans waaw ndax góor la wala jigéen moom tamit. moom góor la góor la vraiment góor la mu ngi sol aussi tamit euh, sabodor donc euh, moom aussi tamit euh, góor la vraiment xaw à peu cinq ans ba quarante am na ko waa. mën nañu xam moom tamit ci yan anam la ñàkkee bakkanam accident la wala ci lan. waaw boobu moom defe naa dañ ko fekk si mosquée bi ñu indil ñu ko foofu lañ ko jëlee xaw ma ndax feebar la xamuñu lan moo ko rey. vraiment peut-être autopsie bi dina éclairer yenn yi quoi waaw. moom lan la dafa xees dafa ñuul teint clair wala. waaw moom dafa ñuul daa ñuul mais du ñuul euh, bu foncé de. waaw waaw du ñuul ñuul euh, ñuul ñuul yi yem yàlla rek. muy ñëw yorul benn pièce boo xamante ni mën nañ ci xam turam wala kenn koo xam ne euh, yor na ko ci ay numéro. déedéet yoru yorul benn pièce waaw yorul benn pièce moom la ñëwee. ngi sàkk parent képp koo gis image yi si internet bi nga ñëw jël sa corps si Philippe Senghor vraiment et puis tamit soo ñëwee jël corps bi itam lépp c'est gratuit waaw doo fay dërëm vraiment di eh, si tour Abdou Karim Diop médecin chef district bi parce que état mënu def lépp donc lu ñu mun def rek ñun jàppale état jàppale aussi tamit euh, eh, nit ñi parce que am na ñoo xam ne seen loxo jotul loolu tax képp koo xam ne yaa ngi ñëw jël sa corps sans vie fii dërëm sa doo fay dërëm lépp c'est gratuit morgue bi c'est gratuit docteur Karim may na leen ko gratuitement vraiment kooku vraiment di koy sant aussi parce que moom déjà dafa xam sens santé et puis tamit xam na aussi tamit lii lu war la parce que tamit euh, dañu ne ñun en matière de santé soxla ñu bénéfice xam nga lu ñu sox soxla mooy nit ñi nañu faju faju bu mucc ayib loolu la ñu soxla. d'accord mën naa xam diire bi nga xamante ni ñoom dañu ko fi def ba seen mbokk yi bu ñu ñëwul ngeen war leen ko denc diire bi ci ñaata fan rek la toll. bon sa ça dépend du procureur parce que aussi tam su defee ay quelques mois procureur day joxe ndigal bu booba su joxe ndigal rek ñu ànd ak euh, agent d'hygiène yi ñu denc leen ko ñu denc leen. mën nañu xam kàddu gu mujj gi lan lay doon ak ñooñu bu fekkee mën nañu bëgg nañu ñëw ngir bu ñu gisee image bi mën a jël ci seeni mbokk ci naka la jaar. Eh, kaddu bu mujjee bi daal eh, joxe naa suma numéro eh, man maay Alioune Diatta comme nu ma ko waxee suma numéro de téléphone 77 la 537 77 32 77 537 77 32 képp koo xam ni que daal gis nga image yi rek ubbi ñu seen site aussi tamit yéen déjà xam ngeen am ngeen suma numéro donc comme on travaille en nette collaboration. bu boobaa seen corps yi ñu ngi fi comme ni ma ko wax rek du ñu fay dërëm c' est gratuit médecin chef Abdou Karim Diop médecin chef centre de santé mu ne kenn bu mu fay dërëm joxe na génne na note de service par rapport à ça donc moom aussi tam maa ngi ko koy jaajëfal donc pour askan bi xamee ñu xamee ko noonu.